xam ne moom mooy euh, Burkina suñu trois derniers matchs yi yëpp dañu def match nul tey seen nga xam ne mooy seen joueur bi gën a pare di Bertrand Traoré dafay joué yow nan nga bon maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di wax ni match bi gis nañ ni match bu métti lay doon parce que demi finale la ñuy joué mais souvent dama gis ni Sénégalais yëpp instant bi nii dañoo ànd ak euphorie quoi. ñëpp jàpp na ni ndam li ñëw na mais li may wax daal mooy nanu xam ni match bi du yomb. ñi ngi ñaanal Sénégal mu gagné mais équipe bu am doole nañuy footballeur équipe bu am collectif nañuy footballeur donc il faut que ñu patient ñu nangu ni tey match la boo xamante ne dóor dem final ni mu nu jaralee noonu la jaralee Burkina Faso match bi lu mu jaral sénégalais yi rek jaral na ko burkinabé yi donc il faut ñu patient ba a ànd ak offre yi je pense que loolu xëy na ci supporter rek la yem mais au niveau de l' équipe nationale du Sénégal ñoom amuñu état d' esprit bi ñu am. ñoom ils sont sereins et concentrés parce que ils s'attendent à un match très difficile. voilà comme ni nga ko waxee ñu ngi xaar match bu metti loolu Moussa Dieng mën nga ñëw nga rejoindre ñu match bu metti buñ koy comparé ak bi ñuy dajee keroog ak Guinée équatoriale pour yow ban mooy gën a metti. bon match bi mooy gën a metti parce que match bi dafay ubbeeku demi-finale la te Burkina Faso gis nañ ñoom ni ni footballé Sénégalais aussi Sénégal aussi tey danoo indi système boo xamante ne peut-être mën naa ni euh, absence bu Boulaye Dia mun na mun na jouer un peu sur suñu faveur comme mun na nekk suñu suñu suñu problème parce que Bamba Dieng n'est pas un excentré puis réduire donc je pense que xëy na Aliou Cissé tey mënoon na jël Ismaïla Sarr mais il n'a pas voulu prendre le risque parce que il vient tout juste de blessure donc mënu ko woon a jël ci ci pour mu démarrer match parce que match bu métti lay doon waxoon naa ko keroog sa fan zone ba amoon ne woon naa euh, Aliou Cissé c'est un entraîneur boo xam ne dafa bëgg am banc banque boo xamante ne saa bu jaaxle bu jugee def euh, différence bi donc maa ngi ko doon wax sama naa loon man gëw ma ni Aliou Cissé dina départ loo Ismaïla Sarr tey mais su fekkente ne Bamba Dieng li Sadio Mané di dina ko def mooy lan mooy di libérer couloir bi pour euh, comme ni Saliou Ciss di monter su fekkee Bouna Sarr mun na am loolu Sénégal mun na am lu bëri tey xaw ma nag ba xam dina mën a jouer loolu wala. Sénégal ñu gis ni que bi nga xamee ne mu ngi jouer ci Coupe d'Afrique beeg léegi phase de poule yi. xar kanam bi mu wone woon dalul xel waaye bu ñu demee ba jënn poule dem huitième de finale quart de finale wone beneen visage tey ñu war a daje ak Guinée Équateur ñu war a daje ak Burkina jóge ci ki nga xam ne mooy Guinée naka nga gisee match bi ñu war a football ci kanam tuuti. asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi yëpp di jaare bu ni ko waxee rek xool euh, équipe nationale du Sénégal début de poule yi daanaka booy xool daanaka dañ doon nëbb suñu équipe xar kanam dañ ko doon làq bi ñu demee ba ci euh, deuxième tour yi ci la ñu gën a wane suñu xar kanam effectivement par rapport ak match tey bi ñuy joué bu ñuy xool profil yi dafa xaw a niroo Burkina ak Burkina ak Sénégal dañuy niroo te tey dañu soxla vivacité loolu moo waral boo xoolee suñu ligne d'attaque bi yëpp dañ fi indi ay xale yu vif xale boo xamante ne nii dañuy joué verticalement di jëm ci kanam te it am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax lañ ñaan rek ñu nekk si quoi incha allah. nañu ñaan ñu nekk si loolu nga wax mais keroog man public bi moo dalaloon sama xel. mais tey da ngeen a sedd est-ce que pare ngeen pour jël ndem li man li ma gisoon keroog moo gën a daal sama xel pare ngeen pour Sénégal dem final. comme euh, ni ko coach Yat ma waxee léegi Bamba Dieng à la place de Boulaye Dia am ñu doon xaar Ismaïla Sarr yow en tant que coach nan nga gisee lu ni mel. yow waa nga ne Ismaïla boo xoolee ci blessure la jógee match bi passé bu joué presque 30 35 minutes la joué amagul 90 ci tànk yi ci lu ma jàpp kon ndànk-ndànk rek duñ ko Bamba au moins doon na joué doon na di dugg sa match bi muy dugg tey c' est normal ñu may ko chance am parce que boo xoolee Boulaye man sama gis-gis dama jàppoon ni coach bi da ko doon utiliser pour mu wàññi euh, la la ligne défense adverse xool daanaka noonu la doon joué moo tax da ngay xaw a gis tuuti défaillance am da doon bousculer gars yi di néewal doole nga xamante ne Ismaïla bu diggee après day yomb. voilà euh, loolu am na solo beneen changement bi am mooy euh, Cheikhou Kouyaté mu reprendre poste bi nga xam ne moom la yoroon euh, Pape Gueye daal di xaar yow ban gis-gis nga am ci loolu. waaw mais loolu yàpp je pense que baax na parce que bu ñu fàtte ni Cheikhou Kouyaté moom moo nekkoon titulaire à ce poste là moom poste titulaire la ci woon xëy na amoon na carton Pape Gueye dugg. daal di def match yu baax mais je pense que c'est très normal que waa ji jëlaat place am na mën a jëlaat place parce que moom foofu moom moo ko moom. te boo xoolee Chérif Kouyaté c'est un joueur très offensif joueur la boo xamante ne il se procure des occasions par contre boo xoolee Papa Gueye à yi nga xam ne moom lay dóor c'est très rare moom muy dem ci camp yi dafa voilà merci beaucoup di joxante dig daje bu match bi mi tawee di ñaan rek Sénégal ci ndam amin jàngin jëf à tout à Oh, my great big island, oh, my great big island. Abi toog nag, kaay, kaay ñu toog nag waaw